sëriñ Touba Seexul Xaddim ci atum 1912 la jóge ca yéen jolof ci résidence surveillée ñëw nag ci dëkk bu sell boobu di njaareem ci baneen résidence surveillée njaareem googu bu mu fa ñëwee ci résidence surveillée kër gi taqaloo école Ibrahima Coy lañ ko bàyyi woon mu nekk fa ci diirub atub yàlla mu teg ay weer saa xëyee nag tubaab bi daana ko bàyyi sëriñ Touba Seexul Xaddim julli fajar doxantu su masaa di julli fajar nag foofu kër gu mag nekk di buqutul mubaaraka la daa jullee ji fajar su foofu la daa defe lii di naaf yi muy fi ñu def armeer yi jamono ji am na daqaar gu fa nekkoon ci daqaar googu sax léegi naari darmanko yi nekk kër gu mag foofu la ñuy denc léegi seeni néew baneen bërëb bi nag mooy fi kàdd gi nekkoon kàdd gi sax léegi mooy fi xay gi nekk boobu kàdd gi moo gënoon a fés xay gi ginnaaw nag bu kàdd gi daanoo la ñuy wax xay gi ñaari bërëb yooyu la seexul xaddiim daa defe lu ëpp ci naaf yim daa def su paree nag delluwaat ci résidence surveillée bi mu nekkoon foofu nag ci kër gi taqaloog école Ibrahima Coy mujj gi nekkoon foofu wala jaboru commandant bi nekkoon foofu di sàkku ci commandant bi nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñu jëlee ko foofu ndax moom kat ab sécurité wóolootu ko ndax saa sune ne mbooloo miy ñëw di seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak njàng miñ fay def ak dugg dugg beeg génn bi dalalutul daal lii di xelam mu doon sàkku nag ci commandant bi ñu jëlee fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bi nag la commandant bi wax ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko laaj na wax ban bërëb la soxla wala fan la bëgg daal ñu toxal ko fa seexul xaddim nag joxeñ leen foofu di boqatal mu baaraka di kër gu mag ñu jox ko ko ngir mu féete fa ci noonu la sëriñ tubaa seexul xaddim jote foofu di boqatul mu baaraka ci atum 1913 ginnaaw buñ jotee ci këru njaareem gi bañ defar ko ba noppi ñaari bërëb yi mu ëppoon lim daa def ay naaf ak di ñaan ak julli benn bërëb bi mooy fi daqaar gi nekkoon bi ñuy wut ay armeel ci njaareem la sàkk woon ñu def fa lii di armeel yi muy fi daqaar gi nekkoon beneen bërëb bi nag mooy fi kàdd gi nekkoon foofu nag lañ mujjoon def jullikaayu iid bi kon diirub li sëriñ tubaa seexul xaddiim nekk ci njaareem foofu lañ daa jullee iid foofu kàdd gi nekkoon sax ci atu 1914 bi ñuy yebal lii di soldaar yi demoon ngir dimbali ci France ñim doon jullee ci kàdd googu la leen jullee kàdd gi nag jamono ji moo tolloog fi xay gi nekk booba ak kàdd moo fa nekkoon jamono taalibe dajaloo nañ ba tabax ko ci ndigalu sëriñ Moustapha Mbàkke Bachiru foofu la ñuy jullee lii di iit comme na ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim daa defee am na diggante buñ bàyyi woon daa fa jullee iit di ko jullee nag ci biir jumaay njaareem ji waaye mujj gi nag toxalaat nañ ko ca cosaan la muy fakk sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim daa jullee foofa itam fa la ñuy jullee lii di néew yi mooy ñi ñuy waajale njaareem ngir denc leen ci armeel yi njaareem yi wala faneen fuñ leen di denc seexul xaddiim itam foofu la daa joxe ndigal ñu fa daa sange néew yi ba nëga ni itam foofu la sange néew néew ya mooy bërëb ba njaareem googu sëriñ Touba seexul xaddim am na fa ci diiru fukki at ak juróom ci résidence surveillée ci biir fukki at ak juróom yooyu ci atu 1917 nag sàkk woon na ci mag ñi ñu tabax lii di jumaa ci njaareem laataa ñuy amal lii di jumaa ji nag sëriñ Mbàkke Buso la sëriñ Touba seexul xaddim woolu woon mu bind autorisation ci gouverneur bi ngir ñu amal ñaari jumaa yi mu bëggoon benn bi ci nekkinam di njaareem ndax soo demee ci demaanu autorisation jumaay Touba ji sëriñ Mbàkke Buso Touba ngay wax ci biir lettre bi mu bindoon gouverneur bi di ko wax ne ginnaaw bu ñu sàkkoo jumaay njaareem ji ba noppi yeneen jumaa la ñu soxla ci dëkk bu sell bële di Touba lii di autorité coloniale yi nag mu mujjoon nañ jox ndigal Serigne Touba Seexul di mu tabax jumaa ci njaareem ci atum 1917 lañ tàmbali liggéeyu jumaay njaareem ji ci atum 1917 itam lañ gas lii di fondement jumaay njaareem ji ci atum 1918 ca fukki fan yaa benn ci mois de mars lañ njëkk a teg xeeru jumaay njaareem ci teg xeer wi nag mooy daj dëpp gi di ko baax xaddiim ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddiim tegee lii di xeerub liggéeyub jumaay njaaréem ji ba noppi wala laataa muy teg lii di xeerub jumaay njaaréem ji nii lañ waajalee woon lii di liggéeyub jumaay njaaréem ji seex isaa jenn moom mooy chef de chantier mooy lépp loo xam ne nii moom mooy tukkee ci jumaa ji ci moom lay jóge sëriñ balla faali jeng moom mooy trésorier bi mooy lépp loo xam ne nii moom mooy xaalis moom moo koy denc sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke bépp addiya buy jóge ci kilifa yi ci loxoom lay tegu sëriñ moor absalo bépp addiya goo xam ne nii day jóge ci taalibe yi ci loxoom lay tegu suñu paree nag ñu jébbal lépp sëriñ Balla Faali Jeng moom mi trésorier bi sëriñ Balla Faali Jeng nag foofu lépp jébbal Cheikh Issa jenn moom mi yor liggéeyub jumaa ji kon nii lañ tabaxee jumaa ji ba mu egg ci wàllu organisation ginnaaw buñ tëralee programme boobu ak kilifa yooyu ma leen limal ne ñoom ñoo yor lii di taxawaayu jumaay njaareem ji ba ñu laaj addiya yi ba addiya yi mat ñi ngi teg na xeeru jumaay njaareem bisub altene ñaar fukki fan weeru maamu koor ci atum 1336 ci gàddaay gi dëppoo muy lundi 11 mars 1918 ci teewaayu sëriñ Touba Seexul Xaddim moom mi war a teg lii di xeeru jumaay njaareem ji sëriñ Maxtaar Bintaloo mi nekkoon jàmbaaru sëriñ Touba Seexul Xaddim moom moo fob turéel bi jébbal ku baax ci sëriñ Touba Seexul Xaddim ñu teg nag lii du xeeru jumaay njaareem ci bisub altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru maamu koor ci atum 1336 ci gàddaay gi dëppoo woon ak mu nekk bisub lundi 11 mars 1918 ñu tàmbali nag liggéeyi jumaay njaareem ci njàppandalul mag ñi ci njiitul seex isaa jenn jumaay njaareem jooju nag ñu ngi ko tabax ci àddiyey mag ñi ndax mag ñi kat ay sas lañ leen daa def saa su ne wala at mu jot kii di sëriñ ma ndumbe mbàkke ginnaaw aw sasam moom warlante woon naag jumaa ji at mu jot yeneen téeméeri junni yu bokk tëkk aw sasam ngir liggéeyub sëriñ tubaa seexul xaddim bi mën a egg saa buñ soxlaa lii di ay mënee baritim mag ñi fop seeni taalibe wala ñoom ci seen bopp ñu ñëw liggéey jumaa ji ci teewaayu nag ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ndax moom mooy liggéeylu ci noonu nag ni lañ ko toppoo ba ni jumaa ji egge ci atum 1923 laata jumaa ji egg ci atum 1923 lii di gouverneur bu Sénégal ñëwoon na seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wala lenn ci délégation ñëwoon na ku baax ki sëriñ Karim ci biir liggéeyub jumaay njaareem jooju bi ñu ñëwee nag dañoo jëloon plan b jumaay njaareem ji yóbbu ko ngir bëggoon liggéey bi arrêté kii di sëriñ Balla Faali Jeng moom waxtaan ak sëriñ Mandumbe Mbàkke di ko xamal ne nañ dem jëliwaat lii di plan b jumaay njaareem ji ngir bëgg-bëggub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim mën a am plan bi nag nañ dem Ndar géej bu buñ fa fekkul gouverneur bi jàll Ndakaaru ngir mën a foqatiwaat plan bi indi ko ndax lan moo tax gouverneur bi ñëw fii di jël si plan Ndumbe Mbàkke nanguloon na sëriñ Balla Faali Jëng wax jooju ñu ànd dem ndar géej laataa ñuy egg ndakaaru ndar géej googu lañ fekk lii di gouverneur bi laaj ko palaab jumaay njaareem ji mu joxaat leen ko ñu indi ko yitaat ko ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim mu tegaat ko ci loxo loxoy Seex Isaa Jenn lii moom soo demee ci marché bi Seex Musaa Ka defal kii di sëriñ ball Faali Jëng ma ngi ko fay netti li ngir mu gën leen a leer ne jumaa ji plan bi tubaab bi na teg ci loxo kon lu diggante jaareem ji taxawu fi ba ni mu egge ci atu 1918 ba 1923 ci ndimbalul nag mag ñi nga xam ne nii ñoo yaakaaroon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci teewaayu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ndax léppam ci kanamam la te moom mooy liggéeylu ginnaaw liggéey bu am solo boobu mag ñi liggéey ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñaari jumaa yi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim gënoon a bëgg benn ba ñu liggéey ko ci ak nekkinam ci dëkk boobu mu nekkoon ci résidence surveillée ci lu tollu fan muy njaareem ci quartier boobu mu nekkoon di buqutul mu baraka di kër gu mag jumaa ji nag ñi ngi xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ne amatul lenn lu luñ cay def bisub ajjuma fukki fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1342 ci gàddaay gi dëppoo woon ak muy vendredi 24 août 1923 la ñu yëgal ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne jumaa ji daal amatul benn liggéey buñ ciy def bi maanaam noppi na sëriñ tubaa seexul xaddim foofu la bàyyi woon jumaay musu cee julli nag lii di julli juróom musu cee julli nag lii di jullik ajjuma ba nim fi bàyyi ko ci atum 1927 ci le 19 juillet ba waaye mag ñi jege woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim te daa xool taxawaayu sëriñ tubaa seexul xaddim ci jumaay njaareem ji wax nañ ne julli na ci nag ñaari yoon am na ñu ne déedéet ñetti yoon kay la ci julli ñii ne ñaari korite la ak benn tabaski waaye daal li wér te wér mooy sëriñ tubaa seexul xaddim ñetti tabaski ak ñetti korite fekk fekk na ko njaareem jumaa ji pare ndax ci atu 1924 tëbëskeem ak koritem fa la fekk sëriñ tuba seexul xaddim ci atu 1925 itam tëbëskeem ak koritem fi la fekk sëriñ tuba seexul xaddim ci atu 1926 jàpp 1927 itam tëbëski googu amoon ak korite googu itam fi la fekk sëriñ tuba seexul xaddim te boobu fekk na jumaay njaareem ji noppi nag ba pare ba ñu tëj ko waaye lu wér te wér daal am na ñu ne bi jumaa ji eggee korite gi ko njëkk fekk ci njaareem jumaa ji pare moom julli na ci lii di korite korite ga ca toppaat itim julliwaat na ci lii di korite am na ñu itim ñu ne tëbaski gi nekkoon ci diggante bi itim julli na ci tëbaski waaye daal li wér te wér mooy juróom benn feet yooyu moom fekk na sëriñ tubaa seexul xaddim njaareem jumaa ji pare muy ñetti korite ak ñetti tabaski la ëpp itam ci boroom xam-xam yi nangu nañ ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim julli na fa ñaari yoon itam lii di korite ginnaaw ñaari julli yooyu fa sëriñ tubaa seexul xaddim julli nag lii di korite te lu ëpp ci boroom xam-xam yi nangu ko sëriñ tubaa seexul xaddim nag nekk nag ak jumaay njaareem ginnaaw bu mu noppee lu tolloog ñetti at ak fukki weer ak benn la def ak jumaay njaareem ji daal di génn nag lii di àdduna ci bisu fukki fan ak juróom ci mois de juillet ci natt ñu jël ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim indi ko ci dëkk bi mu gënoon a fonk di Touba ngir jébbal ko fi lii di boroomam ci ndigalul taawam ba Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Touba seexul xaddim ay bis yooyu mag ñi amoon njaareem na ngir taxawu ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim ci diiru bi mu génnee lii di àdduna talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de juillet la sëriñ Touba seexul xaddim génn àdduna talaata ci guddi lañ ko indi ci dëkk bu sell bii di Touba ci fajaruk àllarba ji lañ jébbal ku baax ki sëriñ Touba seexul alxemis ja ca ajjuma ja nag kii di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo njëkk a jiite jumaa ci jumaay njaareem ji tombeeg nag muy ñetti fan ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wujjee boromam tañ denc ko ci dëkk bu sell boobu di Tuubaa ajjuma jooju maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru njëkk a jiite jumaay njaareem moo dëppoo woon nag bisub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram ci atum ci gàddaay gi dëppoo woon 1957 bis boobu itam la mujjee jiite itam ci jumaay njaareem ji ba ni mu génnee àdduna moom itam ci atum 1943 ginnaaw bi nag lañ fop seen rakk ja sëriñ Afiye Mbàkke mi bokk ak maam Cheikh Anta Mbàkke benn waajur waajuru góor ak wu jigéen di rakki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim jébbal ko jumaay njaareem ji nag mu nekk lii di imaam bi kon sëriñ Afiye Mbàkke moo njëkk a nekk imaamu jumaay njaareem ginnaaw bu fi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke jiitee benn yoon imaam yi jaar ci ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bu mu ko jiitee benn ajjuma sëriñ aafiya mbàkke di rakkam lañ ko jébbaloon ba ni sëriñ aafiya mbàkke génne lii di àdduna ginnaaw sëriñ aafiya mbàkke sëriñ mbàkke bu buso moom moo nekkoon ñaareelu imaamu jumaay njaareem ginnaaw sëriñ mbàkke kàndi buso sëriñ mohamadu jóob dagana moo nekk ñetteelu imaamu jumaay njaareem ginnaaw sëriñ mohamadu jóob dagana sëriñ miwnu jaxate ibnu sëriñ mbàkke jaxate moo nekkoon ñeenteelu imaamu jumaay njaareem ginnaaw Seynu Jaxate ibnu sëriñ Mbàkke Jaxate sëriñ Daam Buso moo nekkoon juróomeelu imaamu jumaay njaareem ginnaaw sëriñ Daam Buso ku ñuy wax sëriñ Maalik Jeng moo nekkoon juróom benneelu imaamu jumaay njaareem ginnaaw sëriñ Maalik Jeng ku ñuy wax sëriñ Xalifa Loo moo nekkoon juróom ñaareelu imaamu jumaay njaareem ginnaaw sëriñ Xalifa Loo ñuy wax sëriñ Ousmane Silla moo nekkoon juróom ñetteelu imaamu ma soxna Loo moo nekk juróom ñeenteelu imaamu jumaay njaareem fukkeelu imaamu jumaay njaareem mooy sëriñ maxtaar Diop moo fi nekk sax ba jamono jii ñu koy ñaanal nag suñ borom yàggal ko nag ci toogaayu imaam boobu ginnaaw imaamu jumaay njaareem yooyu lii di julli korite yi ak tabaski yi imaamu jumaay njaareem itam nii la tëdd sëriñ Afia Mbàkke ba ci 1941 doomam sëriñ Moodu Farmata Mbàkke moo fa nekk itam nag ba ci atu 1946 sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moo ko jiite ci atu 1946 ba atu 1960 1966 ci atum 1966 ba atum 1978 Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo nekkoon imaamu julli korite ak tabaski ci jumaay njaareem jooju wuutu waajuram wa Serigne Bassirou Mbacke ibnu Serigne Touba Seexul Xaddiim ginnaaw Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci atum 1978 ba atum 1985 Serigne Mbacke Madina moo nekkoon imaamu julli korite ak tabaski ci jumaay njaareem jooju wuutu magam ji Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ginnaaw Serigne Mbacke Madina la sëriñ Moustapha Mbàkke Bachir moo nekk imaamu jumaay njaareem ci lii di tabaski ak korite ci atu 1987 ba 2007 wuutu magam ja sëriñ Mbàkke Madina 2007 ba nëgëni nag doomu sëriñ bashir bi ñuy wax sëriñ Muntaqa Mbàkke Bachir moo nekk juróomeelu imaamu jumaay njaareem ci wàllu tabaski ak korite wuutu magam ja nag sëriñ Moustapha Mbàkke Bachir sëriñ Muntaqa Mbàkke Bachir moom ci ñu ngi koy ñaanal suñu boroom guddal aw fanam te wéral ab cëram ndax sag la ci yoonu murid wi ci darajay maamam ja xaadim rasuul amin sëriñ muntaxa mbàkke basiiru nag laataa sëriñ mustapha mbàkke basiiru di fi bàyyi ko jot naa tàmbali jiite lii di jumaay njaareem ji ndax ci mujjug sëriñ mustapha mbàkke basiiru lii di wéradi gi moo ko sonaloon sëriñ abdul akim mbàkke ibnu cheikh mamadul basiir itam jiite na ko benn yoon ndax bi seex cheikh mamadul lamin baara mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke di doog a toog xalifa am na genn nu tabaski gu sëriñ muntaxa mbàkke wuute ñëw jiite si lii di jumaay tuubaa ibnu cheikh mamadul basir mbàkke moo ko jiite kon imaam yi itam ko benn yoon sëriñ alaaji mbàkke moom cheikh mamadul basir mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ fàllu mbàkke moom itam nag jiite na ko benn yoon lu jiitu jëmm yooyu yépp di fa ñëw itam kii di sëriñ tubaa seexul xaddim jiite na ko ñaari yoon korite ginnaaw sëriñ tubaa seexul xaddim itam sëriñ aafiya mbàkke moo nekkoon imaam bi ba nim fi bàyyi ko lii di jumaa njaareem itam foofu la jaar ci wàllu imaamu tabaski ak korite ci atu ba nëgëni ginnaaw imaamu julli korite ak tabaski yu jumaa jumaay njaareem ci atu 1923 ba jamono ji noddukat yi itam ñoom ñoo fa jaar ci jumaay njaareem muy ku ñuy wax sëriñ du Jaxate moom sax foofu la nekkoon di nodd ba ni jumaay tubaa ji eggee bi jumaay tubaa ji eggee nag la ko cheikh Mamadul Faadal Mbàkke jële njaareem indi ko tuubaa mu wéel ak noddam ci jumaa ji ginnaaw sëriñ du Jaxate moomu ku ñuy wax sëriñ Basiiru Taal moom itam nodd na ci jumaay njaareem lu tolloog ñaar fukki ati suñu boroom ginnaaw sëriñ Basiiru Taal ku ñuy wax sëriñ Moustapha Sarr moom itam jaar na ci jumaay njaareem ji di nodd sëriñ Moustapha Sarr moom nag li ko boole ci noddkat yi ci jumaay njaareem ji ab jàngalekat la woon ñu affecté woon ko foofu ci njaareem bi mu ñëwee nag la tombee doon nodd jamono jooju nekkoon ci ab wéradi ñu yëg ne jëmm jooju di sëriñ Moustapha Sarr naa nodd ñu jël ko nag ngir mu remplacer kooku wéradi woon doon nodd jamono jooju mu jigi nag daana ginnaaw bi nag jëlewaan nañ ko njaareem ci beneen affectation kon sëriñ Moustapha Sarr moom itam jaar na ci noddkat yi jumaay njaareem yi waaye lii moo ko boole woon ci noddkat yi ginnaaw sëriñ Moustapha saar ku ñuy wax sëriñ Makhtar Silla moom itam def na ñaar fukki at ci jumaay njaareem jooju di noddu ginnaaw sëriñ Makhtar Silla noddkat ku ñuy wax sëriñ Mbay Siise moom itam jaar na ci jumaay njaareem jooju di noddu ginnaaw sëriñ Mbay Siise ku ñuy wax sëriñ Moodu Faal moom itam jaar na ci jumaay njaareem jooju di noddu ginnaaw sëriñ Moodu Faal am na ku ñu doon wax sëriñ Demba Diop moom sax moom moo nekkoon imaam bi daan noddu lii di ajjuma ju jot ci jumaay njaareem ji moom itam jaar na foofu di noddu ginnaaw sëriñ Demba Diop mi nekkoon noddukatub ajjuma ji boole ko di nodd waxtu juróom yi am na kuñ doon wax sëriñ mbay jenn moom itam jaar na ci jumaay njaareem ji di nodd ginnaaw sëriñ mbay jenn am na kuñ doon wax sëriñ asan baay jaañ moom itam jaar na ci jumaay njaareem ji di nodd ginnaaw sëriñ asan baay jaañ noddkat yi fi nekk jamono ji ci juma njaareem ji mooy sëriñ mbay jenn sëriñ keebaa sàmb ak sëriñ basiiru njaay sëriñ mbay jenn ak sëriñ keebaa sàmb nag ñooy ñi fi gën a yàgg sëriñ basiiru njaay nag ci yi la kon ñoom itam na leen yàlla fay te guddal seenu fan ñoom noddkat yooyu nag jaar ci jumaay njaareem ji képp koo xam ne jiitu ji nga yàlla na la suñ borom wanale ku baax ki riñ tubaa seexul xaddim te yiir la mbalaanu yërmande képp koo xam ne nii nag yaa ngi fi yàlla na la suñ boroom guddal saw fan te wéral say cër te yàggal la nag ci taxawaayu njaboot gi jumaay njaareem jooju noppi na ay ati at te amul nag lii di ay rajo te teewul daanañ ci julli nag lii di waxtu juróomi ci biir julli yooyu nag am na ñaari doomu aadama yuñ ca ràññee woon bu baax a baax suñ masaa julli te jumaay njaareem amul rajo ñoom ñaar seen kàddu daanaka rajo fay na ko muy ku ñuy wax sëriñ Moustapha Guèye jottalikat ak ku ñuy wax sëriñ Cheikh Diagne jottalikat ñoom ñaar ñii laataa jumaay njaareem di am rajo ñoom ñaar ñoo daa jottalee te macha fu waaye man di nekk danga dégg seen baat kon ñoom itam yàlla na leen yàlla fay ci jëf jooju ginnaaw noddukat yooyu ak jotlikat yooyu jaar ci jumaay njaareem ji lii di jumaay njaareem itam amoon na ñu yoroon lii di cet gi muy taxawaayu jumaay njaareem ku ñuy wax sëriñ mbàkke juuf moo njëkkoon a yor lii di cetuk jumaay njaareem ji ginnaaw bu mu fa bàyyi ko lañ ko jox sëriñ saaliw loo ibnu sëriñ moor absa loo ginnaaw bu fa sëriñ saaliw loo bàyyi ko ibnu sëriñ moor absa loo lañ ko jox sëriñ cheikh loo ginnaaw sëriñ cheikh loo lañ ko jox sëriñ abdou samat silla ginnaaw sëriñ abdou samat silla nag lañ ko jox sëriñ baay sulay gay sëriñ baay sulay gay moom moo yore jamono ji lii di setug jumaay njaareem ji moom tu yàlla na suñ boroom guddal aw fanam ña ko fa jiitu itam yàlla na suñ boroom yokk seeni leer te taas ñu seen barke lii di entretien wu jumaay njaareem njabootug cheikh isaa jenn lañ ko bàyyeel ndax seen waajur wa cheikh isaa jenn la sëriñ tuubaa seexul xaddim joxoon mu jiite lii di liggéeyub jumaay njaareem ji ba nëga ni itam entretien jumaay njaareem ji itam ci seen loxo la tegu jumaay njaareem ji nag yeesal nañ ko ay yooni yoon ci nekkinu sëriñ baara jenn mi njëkkoon a wuutu cheikh na ko ay yooni yoon biir xilaaf ak sëriñ baara jenn di jiili mbay sàkk woon na ci sëriñ jenn ngir mu jox ko ndigal itam mu barkeelu ci yeesalaat jumaay njaareem ji kon kii di jiili mbay itam yeesal na ko ay yooni yoon ci ndigalul sëriñ baara jenn ginnaaw jiili mbay ci ndigalul sëriñ baara jenn kii di sëriñ abdulatif jenn mi toog toogaayu cheikh isaa jenn moom itam yeesal na ko ay yooni yoon ba jamono ji ñuy wax ak yéen jumaay njaareem mi ngi ci ak yeesalaat te sëriñ abdulatif jenn mi xalifab cheikh isaa jenn moo koy amal Latif Jenn itam yàlla na ko yàlla fay ci yool boobu fayaale magam ja sëriñ baara jenn ak jiili mbay mi sàkku woon loolu ci njaboot gi njaboot gi nangu loon ko ko jumaay njaareem jooju laataa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko taxawal coono bu ne nag daj na ko ci moo xam ci gabon ak fépp fu mu jaar ngir yéene rek tabax néegub suñ boroom te suñ boroom mujj ko sottal ci jumaay njaareem ji ñu ngi ñaan ci yéene jooju seexul xaddim amoon te mujj sotti bépp jafe-jafe